Khalifa Sall je ne vois pas pourquoi ñu naan cas Khali le cas Khalifa Sall n'existe pas. Ah. et lii yëpp aussi li wolof di wax naan magum xamoon na waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko. Hmm. lii yëpp taxawu Sénégal artu woon na. Hmm. Khalifa ci Sall ci boppam artu woon na ne réew mi nañ ko pencu bu muy wax ni nañu dem dialogue. Hmm. mais c'était pour régler question yëpp. mais question yëpp tey jii dem nañu. Khalifa Sall et Taxawu Sénégal am nañu raison ci ñi nga xamoon dañu bañoon wuy ji réew ñun loolu ñu xam même bu dul réew àdduna dañ koy pencu. même fu mu toll sax da ngeen waxtaan. dañuy waxtaan. mooy li regarde ce qui se passe au Tchad aujourd'hui mm-hmm. l'histoire du premier ministre boo ko xoolee da nga xam ne réew dañ koy pàccoo. Mm-hmm. regarde ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. pàccoo nga wax de. penco penco entre li Gré Boudé di wax Guillaume Soro. Mm-hmm. xoolal kaw Nelson Mandela réew day toll foo xam ne dañuy toog péncoo ko waxtaan ko póot ko póotum biir pour xool lan moo ci tilim ñu dind ko xool li ciy sell ak set pour jëmale réew mi kanam. parce boo xam ne bu ñu demee ba ku nekk jóg ku nekk jóg façon bu nekk gis nañ ko fi mu nekk nii ci candidature yi. façon bu nekk gis mais oui ku nekk ñoo xam ne prison ñoo xam ne dañoo waxoon fii yuuxu lu ne wax nañ ko hmm? mënuñu am sax parrainage ba ku nekk ku jóg ne man mën naa nekk candidat mais c'est ça fan lañu jëm ah bien que c'est pas la même chose